jottali leen communiqué bi ba ak juróom-ñeent téeméer ak fanweer ak juróomi test ñu def téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaari cas contact ak juróom-ñeent téeméer ak fanweer ak def téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett ñoo ci positif ci positif yooyu ak ñaar am nag benn ñu tuddee cas communautaire mooy ñu jot ci mbas mi fekk xamuñu fi ko jëlee wala ki leen ko wàll ñooñu nag seen lim ni la tëddee ci Dakar ak li ko wër am nañ ci juróom-benn fukk ak juróom-ñaar ci gox yi juróom-ñaar ci Rufisque ñeent ci Parcelles Assainies ñett ci Mariste Amitié 1 Almadies Yoff HLM Grand Yoff Guédiawaye ak Pikine ñaar ci Jëppal Liberté cinq Liberté 6 Point E Cité CPI Amitié 1 Almadi Yoff HLM Grand Yoff Guédiawaay ak pikin ñaar ci Jëppal Liberté cinq HLM 1 Liberté 1 Ñaari Tali Mamel Mermoz Cité Djilimbay Cité Murtada Nord Foire Sicap Foire Sacré-Cœur Cité Ñaari Tali Mamel Mermoz Cité Djilimbay cité Mourtada Nord Foire Sicap Foire fukk ak juróom-ñaar ci Thiès fukk ak benn ci Tivaouane juróom-benn ci Kolda ñaar ci Daaru Musti Kédougou sali mbuur ak Tamba benn ci Kaolack Koki Matam Maka Koulibantang Somone Popenguine Pout Touba Ndiassane ak Taïba Ndiaye ñett téeméer ak ñaar benn ci Kaolack Koki Matam Maka Koulibantang somon Popenguine Pout Touba Ndiassane ak Taïba Ndiaye ñetti téeméer démb alxames fan ak benn ci weeru mars mi nekk ñeneen ñi des hôpital ak ñi xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi ñu ngi am tan ci bësu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba senegal wëññi na fanweeri junni ak juróom benn ak ak juróom ñeent ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fanweeri junni ak benn na fanweeri junni ak juróom-benn ak juróomi téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ñett junni ak juróom-benn téeméer ak ñeent fukk si lalu hôpital yi ak si malade yi nga xam ne ñuy leen topp ci biir kër yi ministère la santé et de sociale mu ngi ñaanal ñooñu génn àdduna yàlla xare leen àjjana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 di denc seen carte ni mu waree